de coordination entre et la C'est vrai que Sadio est la star de l'équipe. Euh, c'est un joueur de classe mondiale. Mais c'est ah, après les questions de Est-ce que Sadio Mané ce bon ah Voilà, amis fidèles, euh, de quoi euh, li nga xamante non le Sénégalais yi match Sénégal contre Ouganda 1 euh, but à 0 Aliou dañuy dugg na réaction yi Sénégalais yi naka la le li nga xamante ne moom victoire bi parce que mel Sénégal mi ngi gën a percé ay dem yàlla na gën a jëm kanam ay ca ñu xool réaction yi naka la dundee li nga xamante ne moo match bi. gis nga quoi, ah, ñi ngi si li nga xamante ne moom euh, première mi-temps bi dañuy dugg xool Sénégalais yi kenn ku nekk si moom si ñoom naka la dundee li nga xamante ne moom première mi-temps bi sa waay m'a ngi lay nuyu. maa ngi jaar bu baax la fay non? def fait la sant alhamdulilah euh, fekk nañ la fi nga xamante ne place de la nation. Mhm. Euh, yaa ngi suivre match bi Sénégal contre Ouganda naka nga dundee premier mi-temps bi. waaw premier mi-temps bi duru nañ ko contentement bu bari bari bari parce que équipe bi niñ wara taxawé a bi baxna ba paré pressé nañ bu baxa baxa bax ci kaw xana di wax ñu gëna taxawé taxawee rek deuxième mi-temps bi ñu gëna a attaqué après gagner mu jeex. ok ça va ñi lay nuyu. waaw ñi lay fay. Euh, fekk na la fi place de la nation naka nga dundé li nga xamante mom moy premier mi-temps bi. waaw c'est un match piège nañ def ndànk rek premier mi-temps bien que ni am nañ possession balle bi mais nañ xaar deuxième mi-temps bi daal pour ñu mën ci wax parce que bu ñu xoolee Ougandais yi ñu ngi am ay occasion ce qui veut dire que à tout moment match bi mën na basculer. voilà gis nga quoi moom xam nga mi ngi nii ñëw euh, def drapeau si côté lex bi ah, di supporter Sénégalais yi xam nga xale jigéen ñi seen supporter daf neex quoi mais ñu lay nuyu. maa ngi lay fay. mais fekk na la fi nga def lu baax di supporter Sénégal euh, naka nga dundee premier mi-temps bi. ah neex na trop comme Sadio def na lu mu war a def joueur yaa ngi def lu ñu war a def gën a yokk ndax xam nañ ne moo mën moo ëpp lii fuuf. ah supporter Sadio Mané. non du ma supporter Sadio doomu Gana Gueye laa supporter Gana Gueye laa. mais tey euh, soo doon wax tey euh, joueur li nga xamante ne premier mi-temps bi loolu lañ euh, dal na sa xel pour deuxième mi-temps ñu beneen bi. non war nañu gën a yokk effort nag lii war nañu def def lu ëpp may ñaan a gën a wane boppam. gis nga sa waay li mu def waaw moom dafa ñëw def xam nga euh, nu nga ko afro bu baax quoi génn si version mais sa waay li nga def naa gis na de. Serif Sadaga 2002 coupe du coupe du monde 2002. bii mooy coupe du monde 2002 waaw depuis coupe du monde 2002 ba léegi maa ngi ko jéng. est-ce que mais naka nga dundee première mi-temps waaw bon ça va euh, bien joué dans l'ensemble donc ça va quoi. ñu ngi leen xaaral nag deuxième mi-temps ñu gën a monopoliser marché a jël monopole marché waaw ça va ça va ça va ils ont bien joué en tout cas ñu ngi doon si bëfi physique bi répondre nañ bi ñu defal contre Algérie tey def nañ ko macha allah quoi ça ok ça va ñu ngi lay nuyu. Ah, fay. mais yow mel na ni sa xel dafa dal de ñu ngi lay fekk xam nga yor sa café di bëgg ni. ah waaw stade bi kay gars am nañ confiance quoi. mais premier mi-temps bi naka nga ko dundee. ah match bi 2-0 la. 2-0 la deuxième mi-temps bi dañuy noo gisee joueur yi. ah joueur moom actuellement nii baax na quoi. waaw li des mooy ñu deuxième mi-temps bi ñu ñëw confirmer rek mu jeex. Ah, xam nga nag euh, lu mënta ñàkk la parce que ñoom jaaykat yi aussi euh, si supporter yi la ñu bokk parce que ñoom ñooy coloré li nga xamante ne moom mooy bés bi tey foo foo tourné da ngay gis euh, version rouge maman ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. Ah, ñu ngi la fekk place de la nation yow yaa ngi jaay li nga xamante ne nii ay jumtukaay la yoo xam pour supporters yi la ñu bëggoon xam njaay mi fii naka la demee ak match bi. ah njaay mi ah nu ngi jaay de wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla may ndam rek barke Seydina Mohamed lu nu yàlla may yàlla na ko xeeb barke Seydina Mohamed. ah maman léegi naka nga gis marché bi ndax affaire yi ñu ngi jar wala. waaw mi ngi jar nànk-nànk rek mi jar nànk-nànk ñi ñaan yàlla nag yàlla na biti yokk njaay mi yokk barke Seydina Mohamed. mais maman yow yow naka ngay dundee marché parce que yow mel na ni doo seetaan wala daal da ngay topp rythme bi rek. ah waaw mun di supporté di tabaka daal mais mun noo bàyyi njaay mi fii li ngi xaar ñi ni gën a oyof rek ñu leen jaay ñuy supporté yow ka nga gisse suñu joueurs yi. joueurs yi dañ ñaan yalla rek yàlla oyofal den ay yudai. Regla mu dal ak nelaw yu doy rek la leen di ñaanal. mama ñu leen ma nuyu. ngi leen di fay. wa mama naka ngeen dundé kan bi ak eh, jaayu couleur drapeau Sénégal ñun bu nu sañoon chaque jour ñuy gagné ndax heure bu nu gagné ñun dañuy jaay ba doyal mais bu nu amé rek suñu jaay yi day tak. jaam ak pexem nak yalla ak dogolam bu na soñoon gis nga xale yi ni ñu bëggee jouer ñun mag ñi noon lañ leen bëgg même bu doon jaay sax dañ leen a bëgg dañ leen a bëgg dañoo bëgg ñu dóor comme bërki démb 3 loolu lañ bëgg ñu dóor ko yal na nu yàlla jàppale yal na yàlla gis seen coono yal na yàlla gis lépp ci daraja sëñ Fallou Mbacké li gën yal na ko yàlla def ci senegal Sénégal sonn na ci coupe mag ñi dañuy supporter xale yi dañuy supporter yal na leen yàlla jàppale lool daal lañ leen di ñaanal ñun ok mama naka nga dundé ambiance bi fi ni ambiance su seetaan si match si Sénégal. ambiance bu neex ba bëgg rek parce que ñun fi bu ñu jass ñu fi ñëw ay ay presque ay 10 heures ci suba fi ngay lal fortaatu say bu zalaf fortaatu tamit ci ki yak yoy sen ki brazay yoy yooyu da ngay fortaatu ci bu ñu gagné bu ci demee ba ci kanam ki bi commencé tamit bala ñu dem di taxaw fi di supporter dañuy jënd yalla dal baxna yalla yàlla na lu yàlla jàppale daal. sans faire de foot, euh, il est suit bien en tout cas. Face au Kenya. Sadio Mané. Sadio Mané qui rate encore faux penalty. C'était les pinceaux de Sébastien de Sable, les supporters sénégalais qui jubilent déjà à 15 secondes de la fin. Il y a deux matchs, il y avait quoi Ce match était annoncé très très très difficile. Et le coup de sifflet final de Mustafa Gopal et là c'est fini et c'est fini. ok gis nga ça continue xam nga fi supporter Sénégal dafa neex Comédien ya nga fi artiste ya nga fi actrice ya nga fi Euh SR la wala Racky. Euh, est-ce que doo wax Racky Sow rek. ok Racky ñu leen ñu leen di fay. d'accord fekk na la fi nga xamantene mom moy place de la nation euh, ñu bëggoon xam tay euh, naka nga gisee li nga xamantene mom moy match Sénégal contre Ouganda waaw euh, pour dire vrai déjà première mi-temps fait comment fait parce que nous ngi woon ci plateau tournage et que li ma fi jot a euh, ça nous a ravi nous tous et que joxe nañ lu ñu parce que comme li ma wax kuy jouer 90 minutes je pense que waroo ko wax lenn lu dul gàcce et que ñuy continuer di leen encourager te gën nañ am espoir nag si euh, Tu as gis na Sadio Mane a raté deuxième pénalty am loolu nga ko

mais kan moo sa joueur sa équipe bi. ah man dama si bëri ay doomu ndey nag loolay problème. mais da nga takk numéro 8 kan mooy 8. parce que ma Cheikh sama doom ndey la dama ko sonal dama ko fatt donc moom ak Idi ak euh, Pape Alioune Ndiaye ak Moussa Konaté ñooñu laa ci gën a sonal ci équipe bi moom. ok xam nga sànq waxoon naa la ko nee la comédien yeeg ñëpp a ngi si biir mais sa waay ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama xarit. mais fekk na la place de la nation euh, ñu bëggoon xam naka nga dundee match Sénégal contre Ouganda. waaw kontaan beeg am beeg tey xool yi féex xool yi sedd ndaxte dañu ñëwoon ngir supporter sénégalais pour ñu jël ndam vraiment sunu gaynde yi wane nañ jom wane nañ fulla wane nañ fayda vraiment tey kontaan nañu man ñoo xam li ma bëgg lek lekk tey du ma kontaan. <laughs> gars yi nee nañ Sadio Mané waratul dóor penalty yow loolu nag lan nga si wax. non d'accord ma ak loolu parce que peut-être penalty sens la da ngay dóor dóor ma dem jëli ko mën na tombe mais du question que euh, yaafu sam du question que dafa dafa dafa respecté wul affaire mais yàlla moom mooy dogal tey jii noo gis rek am na loo xamante ne ay ndogalu yàlla luy wàcc yow dañ ko comprendre parce que fi ne raté na waaye dugaloon na fi penalty nañ xool loolu mais bu ñu xool dafa raté lii rek jeex na mais bu raté it mës naa dugal penalty c'est important. Euh, euh, yi li nga xamante ne moom lañ joué tey. Euh, ndax dal na xel. waaw xam nga man nag pata laa du ma fubal kat lamb sax laa gën a jege waaye <laughs> dinaa wax daal wane nañ jom wane nañ fulla wane nañ fayda laay la la laa loolu rek am solo. kon ñu maa gën a kontaan <laughs> maa ngi leen di fay bu baax. naka nga dundee match Sénégal bi. Oh, match bi mbégte rek la mbégte laa ko sentir comme tous les Sénégalais franchement mooy dañu amoon problème si début bi mais man j'en suis certain dañoo am fin bu baax. man loolu xam naa ko si équipe bi waaw. naka nga gisee li nga xamante ne mooy penalty bi Sadio Mané nga xam ne daf ko raté mu nekk deuxième fois. Euh, Sénégalais yi ñu bari commencé wax ni euh, nan bàyyi jox Sadio Mané penalty bi loolu naka nga ko dundee. waaw Sadio Mané bi moom franchement ni mu ko raté na Sénégalais yi aussi. il faut ñu xam ni les grands joueurs partout au monde dañuy raté ay penalty ki xam Messi ku xam Cristiano Ronaldo ki xam Zinedine Zidane ay Figo seen jamono dañu doon raté penalty c'est les meilleurs tireurs ñoom ñoo raté penalty mais dama yaakaar ni amul benn problème l'essentiel c'était de gagner yàlla may nañu ndam alhamdulilah rabbil alamin sa waay ñu ngi lay nuyu waaw jot a nuyu en tant que supporter Allez Casa ñu gis ni Sadio Mané dafa raté li nga xamante moom mooy deuxième fois penalty euh, sénégalais yi commencé suscité di wax que ni euh, Sadio waratuñu ko jox euh, penalty loolu naka nga koy jàngate. man li ma gis ku doon ku doon ma ne ku doon ku doon mën a def bal loolu garaawul loolu garaawul ku doon mën a def lii ay la ñu ngi woon si ma ne ñu may jëm si léegi naka nga gisee tey joueurs sénégalais yi li ñu joué. am nañu jom quoi xëy na loolu. c' est bon baax na coupe la ñu soxla. kon daal si joueurs yi. bu laal coupe rek. léegi noppi rek mbay kay baax booy football. yii moo tax ah, boo kontaanee da nga koy wane sénégalais yi kontaan ngeen da koy wane da nga naan nii xoolal <laughs> sama copain kere pee. waaw dama koo bëgg Sadio Ma ni <laughs> waaw yooyu baax na Ari Sévère <laughs> yooyu baax na yooyu da nga koy kii ah, ah noonu baax na